ba tey ci seen scandale di jour joli bu Macky Sall ñu déglu ci ko ñëwaat. sa waay xam nga lan la ba ba yaa ngi ci TikTok bi di wax rek naan Sonko deful lii Sonko deful nit du naa fekk gis nga as gor du naa fekk Sonko ak préfet ñoo ànd jële fa ndaw ñi. Yang ngi may dégg état ak préfet ñoo andi jële fa ndaw ñi xaar ba ngeen dem julli ji ñu ñëw dajji taabul yëpp dajji lépp sant ca xaj yaa ngi may dégg bu fi toog nan da ngay ay. salaam nih grand nuyu naa la ziare la mais moo grand nih jëruñoo topp ñii dañoo kanasu jëruñoo topp nee na nih ñuy tilimal di jaxase nit ñi ak pro pro moom moo jaxase boppam ak nit ñi ba pare nih tax moo grand ñi jëruñu sax waxal ñii wallaay jëruñu waxal gis nga ñu bëgg a yeewu nañ. ñi seen xel yu baax yeewu nañu xam nañ ne lii yëpp ay manipulation la affaire de politique la te yaakaar naa ñoom war nañ koo dépassé comme politique nañ opposé wu nañ bañ jox leen réew bi leen war waaye kon ne di manipuler baax liggéey bi rafet na. di toppee eh, topp pour lan mais son sa bopp de pour ñii. man bama demé ba gis nit nan man ki jaral na ma ma jël sama jabar jokoko ko ko mu sëy ak mom tëdd ak jaral na ma jox ko sama yaay ñe nan jaral na ma mu ñew violer sa mu ñew violer ma ma seytaan ben live tiktok fam bi ne jaral na ma ma tass sama sey kon ñi lo leen di wax lan nga leen di waxal lan ñu tok ne sen nday yi ñun dañuy dem de bu leen metté ngeen jurat waaw xale yi wax loolu seen ndey yi leen jur neuf mois de grossesse wocc miir benn guddi xaw rey nàmpal fàcc yóbbu école jënd fourniture boo feebaree tabaski korité lépp nga dem ba taxaw nga ne sa yaay kii laay topp bu la mettee su ma fa demee dee na nga fexe sam ëmbalaat la ngeen baal ma mais non lañ ko waxé ku dé sa yaay juraat bala nga jur nga biir nga dem sama biira laat la nga wasinaat ku dé sa yaay juraat wa yow ñi légui lu déssé ñi lo leen di wax man de duma débat ak ñom man duma débat nee naa leen je fais mon travail fi ci VIP people en dehors de cette boîte duma wax waxu politique ñom ñepp waaye kii nag ki dem ba jaral gu góor góor lu mu fiiree mu ne la jaral na ma ma jël sama soxna jox la ko nga def ko sa jabar waxul takk ko de jébbal la ko nga tëddee ko nga delloowaat ma ko kon nga xam ni ñii ça va pas munoo leen wax li waa ji def ba ñu ne la goonga kenn nit daal laa xam ni sama benn tata moom ñoom rek lay topp mais waxtane ak mom bu ci bir la la lay wax ah li de du yoon ah kon yalla nako yalla soppi mom yalla nako yalla soppi lay wax mais lu def ki lu mu def bëgg nañ lu muy waaj def lu ci waaye wax nang ka xam man mom sama liggey wax la bu fekkutoon sama liggey du wax ñi duma ci yey duma ci yapi. mais ñun malheureusement on est obligé de parler parce que c'est ça notre travail loolu moy suñu liggey waye ñii mëno leen yedd yedd yedd yedd ba ñu ne la googa mën nañu rocceeku nag dank ndànk noonu la amuñu fulla de amuñu jom duñu reconnaître maanaam dañuy rocceeku ndànk-ndànk xale la wax ah man ma ma ma bàyyi politique wax naa ah ñun xeex nañ ba jël pouvoir bi kay léegi jaratul ma yi débat fekk dañoo amul argument bi ñu joxe lu ñuy débat li mu fi digg yépp appel à candidature ñun gisuñu ko déclaration patrimoine gisuñu ko supprimer caisse noire ñun gisuñu ko li araamoon daganal na ko li nga xamantene ne ko toléré kuñu ko mësaane gis ray nañ la mom mu ne ñun toléré nañ ko genre amo lo loo leen di wax dag leen di sétane ak waji rek mais le réveil sera brutal le réveil de cette jeunesse de ces gens de ces moutons quand ces moutons deviendront des personnes

waaye nag ah baax na yoon di nga jël di fii waay mën ci ñaar ma góor la xaw ma lu ci di